jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara den ndokkeel ci bis yu tedd yu màgg yi nu toll eh, muy waajtaayu eh, yow ma idil adha bisu tabaski di ci baalu àq bokk yëpp den ci baal xaq ñaan suñu bombal li ñu jégal ñëpp waaye di ci ndokkeel jullit yëpp rawatina si Amadou Muntaxa mi fi nekk si Tuubaa ñaan yàlla mu yàgg fi te wér ba àggale mboolem lim yenn liggéey sintuba Tuubaa liggéeyal ko boroom ci yoon weeg dëkk beeg eh, diine ji di ko ñaan njaboot Sëriñ Tuubaa yëpp waaye di ko ñaan suñu bopp nu taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp na loolu nag ñu bëgg indi rek ay eh, ay bind ci li nu dëgmal muy tabaski eh, tàmbalee ci li ko sabab li ko sabab dafa amoon ci eh, aada ju fi amoon ci jamono yu njëkk muy xalaatu rendi rendi doom xalaat da bu fi yàgg lu jiitu sunu di ko digal Ibrahima alayhi salaam eh, mu nekkoon lu tasaaroo ci anam gu mag a mag ci société yi jiitu woon rawatina fu mel ni Irak ak Sham boo di daan am xërim yu ñuy jaamu lu dul yàlla nga xam ne bare na bu bàyyi daa jàpp ci loxo doomam yóbbu ko ci seen aliha yooyee mooy seen xërëm ya di ko fa rendi euh, ci kanamu xërëm ya ngir ne dañuy jaamu yàlla waaye itam ak jublu ca faj seeni aju rawatina su fekkente ne ay jafe-jafe dafa am dañu toll jamonoy bekkoor wala ay musiba wala ay feebar yu xew wala ay musiba daal yu xam xew dañu wax ne day yàlla ji dafa mer wala dañ koy bégal nag ci ray ay ay ray ngir mën a ngir mën ko bégal ba jafe-jafe yooyu mën a mën mën mën a mën a toxoo nga ne saa yu jafe-jafe yi masaan am rek lay mu njëkk a dem ci seeni xel ca waxtu mooy mooy def ay sacrifice sacrifice yi dañuy seet kenn ku nekk la gën a tedd ci yow gën a la ëpp valeur ci yow nga sacrifier ko ngir mën a jañ merum yàlla jooje ca la ñuy wax ñoom te nit nag amul lu gën a tedd ci moom amul lu ëpp valeur ci moom doom ju mu jur xam na koy rey kon ci rendi wala ci lakk ko wala sànni ko ci biir ndox ndax léeg-léeg dex gi ñuy wax niil day jamono daan yëngatu lool indi ay jafe-jafe waa si mosaan wut am njegmaar mooy xale xale bu jigéen mës a sëy waajal ko sol ko yére yu rafet ay takkaay sànni ko ci ndox mi rek mu daal di dal loolu daanañ ko def Euh, yëpp na kon euh, yàlla taxutoon waaye dañ ko daan def ngir ngir saafara seen jafe-jafe bi suñ borom xamee na subhanahu wa taala ci ne nit rendi gu muy rendi doomam mooy li gën diis ci moom mooy li gën a diis ci bakkan doomu aadama te yàlla bindul bindeef yi ngir ñu di leen bëggal wala moom mu di leen bëggal donte comme ñoom ñagas nañ wala euh, taral nañ seen bopp yi suñ bopp moom suñ bopp moom moo ëpp yërmande ci ñoom seen bopp kenn ku nekk na nga yërëmi sa bopp na yàlla na la yàlla yërëmi ko ëpp fuuf eh, suñu ba na bëgg yàq xeet woowee mën a bëgg yàq seen seen seen anam yooyu ñu daa def ci seen sacrifice yooyu ci la tànn nag ab xaritam ab xaritam la suñu ba ma ne wattaxadallahu ibrahima xalila yàlla moo jàppe ibrahima ab xaritam mu tànn nag ibrahima alayhi salaam mi xaritam la di ab yonentam mu nekk war nekk misaal misaal mu jëf mi nga xam ne ci moom lay jaari nga mën a yàq aada joojee ci la ko digal nag mu romb ne ko nga rendi sa doom Ismaïla alayhi salaam ba mu ko digalee mu ren na ba koy ren na daal di indi am kuy remplacer ko euh, doom ja mu ren mu def muy ren mu daawal jàpp doom lay ren di fekk am xar lay ren nag mel ni dafa dafa nekk message bu jëm ci nit ñëpp message bañ cee dégg mooy day mel ni day xaal mooy wax ne. yaa naasu yaa basharu yaa muslimin laa tadbahu abnaakum wa in kuntum laa maxaalata faa'ilin fadbahu badalan minhum kabsha dafa mel ni daal di sànnu xal mooy wax na yéen nit ñi yéen jullit ñi bu leen rendeeti seeni doom su ngeen demee ba rendi mënta ñàkk na ngeen na ko na ko remplacer ab gàtt rendi gàtt ba su doon na bañ nag loolu xewi mu muy tabaski bi moom mu digle bañ mu xewi wala mu sàppi walla jamono dem ba ba ba ba ko ñu fàtte ko te ci la ko yeewee na takkee ko ak genn jaam yàlla gu siiw muy jaam yàlla ak xaj sha'iratul xaj da leen takke ndax bis bi ñuy taxaw yow ma arafa ba ca suba sa nga xam ne ci la xaj gi jeex nga xam ne ci la ñuy def seen ci la ñuy sànni seen jamra bu njëkk ci la ñuy def tawaafal ifaada xaj gi daal di jeex nga xam ne dañu daal summi man mën a sol seen yére aada leen dese mooy jamre ca des rek foofu la la la sunu doon nga xam dafay dugg ci biir xaj kon ci la nag arab yi nag daal di jël misaal ci loolu ci nag aada jooju di yàqu nag tamaaman aada ay sacrifier doom ngir ay alixe ngir wala wala ngir ngir ay xërëm Abdul Mutalib mi nga xam ne mooy maam yi yéen saas mi nga xam ne neesaroon na wax ne wax sunu borom ne ko soo mayee fukki doom naa rey fukkeel ba ngir sante la ko. sun ba may ko fukki doom fukki ba moo nekk Abdullahi mi xam mooy mooy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bim juddoo ba màgg taaru lool am daraja lool mbokk ci ñim gën a bëgg mel ni ko fàttee la sun ba fàttali ko nag lam lam lam wax lam dénti woon ak moom xamul amul pexe ba demee ba nar koo rey nag la la xuri si téye ci loxoom ci lañ def ay pexe ba lam ko mujj jotoom mooy téeméeri gëléem la la rey sun ba door ko nangu loola remplacé ko kon loolu ay bind la yu ñu war a jàng ci kon tabaski loolu moo ko waraloon mooy aada ju fi nekkoon joo xam ne ju ju ñaaw la suñ doom indi lii nag ngir mën a yàq ngir mën a yàq loolee. tax na nag bi nga xamee ne loolu am na ba jamono dox ba salaasam suñ doom yónni ko nag ci la door sunnaal nag tabaski. muy aada yooyu mu lam digaloon Ibrahima alayhi salaam mu def ko muy muy muy muy yent bu yàlla digal ne ko rendil sa doom mu topp ndigal doom ja nangu nangu ñu rendi ko ngir topp ndigal ba sun boom itam dab leen ci ak yërmandeem ba ba ba loola sottiwut waaye ci la sunnaal nag ci xeetu yëndu saasam ne ko nag bis ba ak seetee ngeen na ngeen ci rendi ay xar ngir feetoo ko sun boom mosu ko may wenn xeet wutul xeet wi di xeetu yënt bi salaa salaam kon day wane tiraanga jum teral xeetu yënt bi salaa salaam Euh, gàtt boobu nag nga xam moom la ñuy tabaskee euh, am luñ ca bëgg du caagi ne gàtt boo am rek mën naa tabaski waaye borom xam dañ caa dañ caa dañ dañ ko leeral wax gàtt ba cay doy ak lañ cay moytu ñu xam ne gàtt boobu ñu cay rendi sunna la sunna mu akkadal sunna waajiba muy sunna su war su dëgër su feddliku ci képp ku ko man nag waaye foofu ñu taxaw fi ndax dangay gis ne nit ñi dañ cey togg loo xam ne jëru ko ci ñoom ndax ku ko man la ku ko mën wàcc na la waaye di di ca leb ay bor yoo xam ne bu si jàllee mu jur la ay jafe-jafe ak lañ cey toggoo daal nga xam ne aj aj ko foo xam ne aggu fa loolu matu ko su fekkee man nga ko am rek baax na soo ko am nag wàcc na la la ca la gën a néew ne ci lu ci doy ci gàtt bu dee xar dañuy wax ne faw na am at na amum at at mu mat sëkk door doy ma bàyyi lu xel foofu ne am na ca xar yi raas yoo xam ne dañuy gaaw màgg am yoo xam ne six mois rek buñ ko amee dañuy toll nale leen neex soo ko gisee jàpp ni bii kat xarum mag la te fekk matu tabaski maanaam kon mat ga du ca rëyaay ba waaye ca as bi la lu mel ni laadum xam nga du juróom-benn weer su ko amee rek daa daa toll ni xar yëpp kon dana aaje booy jënd nga laaj ba xam nga laaj ki lay jaay xar mi ñaata at la am wala wala wala as bi fu mu toll bu dee xar li feeg amagul am at matagul tabaski ak lu mu rëy rëy nag bu dee béy nag day mat at ba tob tàbbi ci atum ñaareelam tàbbi gu leer lu mu néew ne ci atum ñaareel lu mat weer bokk nga jaay néew door a mat tabaski du jariñu dugg ci xar nagak nagak ak eh, giléem ndax loolu moom baaxuwuñ ko tabaskee fii xëy na ndax dañoo wax ne bu xar amut bay amut nag moo fa sës waaye nag lool gannaaw baaxuwuñ ko tabaskee fii du jar du jariñu ci dugg kon daal bu dee xar na am at ba tab bi ci na am at ma bu dee bay na am at ba tab ci atum ñaareelam waaye tabaski na xare ci gën xar bu dee xar yi kuuy moo gën kuuy soo mënta am kuy nga am tàppaanga mooy xar muñ tàpp soo tàppaanga mën a jigéen door caa topp jigéen waaye xar mu jigéen moo gën bay wu góor kon da topp xar ba mu jeex maanaam kuy ma tàppaanga ba jigéen ba ëmma ko nga doon dem nag ci baywu wu góor bay wu góor itam moo gën wu jigéen ah, da nga gis ne fii daa mel ni bay dañ ko dañ ko siba tëbaske waaye ku amul xar mën na koo tëbaske da nekku ci ayut ah, xam nga bu dee ci xeet yi nag ña nekk màkk lañu ñu rey moom dañu wax ne gileem ba gën nag topp ca xar topp ci bëy topp ca foofu mooy la ca la ko mooy bu dee xeet yu moom rëy ga mooy lañ ci bëgg ndax day day yàpp dañ koy dimbale ay faqi moo lu mu gën a bari gën ca bu dee fii nag moom soxluñ ci yàpp yeeg deret ji waaye lañ ci soxla mooy ragal yàlla gi ko laal rek moo tax bu dee fii moom tàmmuñ ci rëy rëyaay beeg lu ma waaye waaye waaye waaye na na na mat sëkk rek la war a mat su ko defee dañ am na ñu cee moytu yoo xam ne ci amee dootu doy tabaski ba ci njëkk mooy ba gàtt boo xam ne dafa dafa dafa pat may benn bët bay gis ba ci jisut loola mënut a tabaski matul tabaski xar mu feebar feebar gu leer gu leer nañ ñi nga xam ne ku ko gis xam ne daa feebar ba mënut a ànd ak jur gi fori doyut tabaski waaye su fekkee day feebar boo yor nag boo xam ne ko mën a ànd ak jur gi di di fori waaye dañoo xam ne boobaa dana baax. ni ko noonu euh, xar mu làggi bay soox nga xam ne soox bi day tar lool boobu ànd ak jur ji ñu ko raw euh, gàtt boobu matul tabaski xar mu làpp mooy xar mu yooy lool ba amul dara ci garis mooy it matul tabaski ni noonu xar moo xam ne dafa am juróom mooy dafa dof xar mu dof mooy itam dañu wax ne matul tabaski xar mu luu mooy xar moo xam ne mënta meem mooy du doy ci tabaski xar mu nopp ya tuuti lool matul tabaski xar mu gi moo xam ne gimiñ gi dafa dafa xeeñ dafa xesaw moom xetu gimiñ dafa xesaw daal mooy itam matul tabaski xar mu cukur itam xar mu fër di caar moo ma xar itam dañoo wax ne matul tabaski su fekkee dañoo xar nopp ba te lañ ca xar mat ëpp un tiers bi waaye suñu xaaj ñetti xaaj daal ëppul benn xaaj bi da da caa yem mbaa mu yées ko dana baax waaye su ko ëppee nag dootuma tabaski buñ ko xaree ak buñ ko daggee ñooy su fekkee dañ ko daggee lañ ko da lañ ca dagg su fekkee suñu xaajee nob bi ñetti xaaj euh, mëtul xaaj bi wala ëpp ko dana baax waaye su ko ëppee nag mooy tam ba dootu doy ci tabaski ni noonu euh, bu fekkee genn bi dafa dagg mooy ba tey fekkee lam ca dagg mën na un bi wala ëpp euh, ëpp ko ëppul un bi baax na waaye su ko ëppee nag ba tey dootu doy ci tabaski ni ko su fekkee béjj mi dafa damm muy nàcc wéragut du doy waaye su xasee wér nag ba nàccatul dana baax kon yëpp ay mbir la yoo xam dañ ko bàyyi xel ci ci ci ci xar mi mi mi mi mi ngay mi ngay moo tax jànn booy jënd nga xool ko bu baax a baax a baax nemi ko ba yeen ca wax yëpp amu ci nga door ko nga door ko jënd euh, nit ku nekk na yaay rendi sa bopp sam xar mi ngay tabaskee su fekkee mën ngaa rendi bu fekkee mënoo rendi nag mën ngaa wut keneen ku la rendil waaye li ma gis ñenn ñi ko def mooy bu ñu nga jël sa loxo teg ko ci kam loolu jëru ko dee lool loolu bi daa la nga ko teewee rek teewee fekk bu ñu ko rendi waaye nag di ko teg sa loxo moom du ko jar nekkul luñ ca luñ luñ ca digle ku ko mën a wàcc na la. tabaski ñetti fan la mooy bésu tabaski bi muy fukkeelu fan bi ki ko jamul am ko ci bis ba ca topp mën ne ca tabaski ba ko ñettee su ko jamee mën na caa tabaski ba xasee fa ñetti fan weesu weesu na weesu na kooku amutoon wàcc na la yéen saa sa mas naa ga mas naa tabaski ñaari xar ñaari kuy yu mag yoo xam ne yu am béjjén yu gudd xar mu ci nekk dafa am lu weex ak lu njul mu tabaskee leen wax ne bii sama bopp laa ko yéen bi ci tax yéen naa ko sama xeet ba àddina tukki ko ci amul tabaski yéen naa la ci ci ci ci ci xar mi kon ku ku tabaski it na nga na la te te moom jëfam lu ñu nangul te sooy jëf xamul lu ñu nangul euh, bu weeru tabaski teroo itam ki nara tabaski na maytu wat ka mbaa mu lay ay weyam te àggul ci bis ba ba ba xar ba ren xaram ba noppi loolu ñu bari dañ ko bàyyi xel waaye xibaar yi ba xasee teru kon soo bëggee watu màggale da nga day lewi balaa weer wee teru waaye soo weer wi xasee teru na te nga war a tabaski bala ngaa sañ a lewi ko mbaa nga watu da nga bàyyi ba àgg ci bis ba ba julli ba rendi sam xar door a sañ wala nga lewi it mat naa euh, bàyyi xel bu baax a baax imaam nag ab gàttam da ko yóbbaale ci jullikaay ba ndax ku njëkk rendi imaam amoo tabaski ku njëkk rendi imaam aw yàpp nga am waaye amoo tabaski moo dañ imaam day indaal am xam ci jullikaay bi su jullee ba noppi rendi ko ci kanam ñëpp ñëpp xam ne rendi na ko dem mën a rendi moo tax dana baax da nga gis ñuy njëkkante suñu sëlmale ñuy njëkkante dugg ci oto di di soo ko mën ngaa àgg ren te fekk imaam rendeegut kon ki julli na toog xaar xutba bi ba imaam xutba bu ba ñu wax la wax li ñuy wax ndax bu wax jeex ba imaam génn ba rendi moo leen imaam ren soo dellu na sa kër door man a rendi mu mu door a wér su ko defee itam ki rendi fajar. ab gàttam am na ndawal waaye amut tabaski kon faaw gannaaw jullige ba imaam rendi ba noppi am na bidaa yu ñuy def it mooy di jàppal xar mi loolu bidaa la ñu ba dañ ko def nag mën a indi am ndox naan dañuy jàppal xar mi am xar jàppóoru ko jàpp ci ab jullit lañ ko lañ lañ lañ lañ ko yoon waaye xar moom kenn yàlla togg ko dara rawatina bu ñu koy bu ñu koy rendi ba njàpp lu muy jarati lu muy jariñati kon jàppale gi nga jàpp bidaa la bokkul bokkul ci diine nañ ko rend rek naa gis bi imaam de am xaram ma gis nit ñi jël eh, jël ci dara jël ci taqal seeni i jë loolu ba tey bidaa ndax deret sobe la sobe kenn du ko def ci sa yaram ndax boo bëggoon a julli deret taq la boo jullee te raxasoo ko amoo julli ndax deret sobe la moo tax loolu lépp itam ay bidaa moo yoo xam ne yu mat a moytu la ka yareen dit faaw wax bismillah bisimilah allahu akbar boo ci mënee sësale baax na boo xasee wax na baax na su fekkee waxoo ko da ngaa ren waxu bisimilah loolu kenn du ko kenn du ko kenn du ko jariñoo dañu jàpp medd la su fekkee fàtte la soo fàttali ko ci biir rendi mën nga koo dabaatal wax ko dana baax waaye soo ko bàyyee tay ko nag dañu wax medd la kenn du ko lekk kon bisimilah munu caa munu caa ñàkk soo dee julli gi nag. mooy jiitu julli gi sunna la sunna la ci képp ko ajjuma war ajjuma kim war mooy góor jigéen ajjuma waru ko waru ko bokkut ak du ko def mooy kenn gàllu ko kenn forcé wu ko ci waaye su ko defutoon dara du ko fekk góor nag moom dañ ko ko gàll su ko deful am bàkkaar kon góor la war di asgor gor di ab julit tey mukallaf kon nga dégg ci ne jullit bu dee jigéen kon julli aji mu waru su dee ab jaam ca ba jaam di am jaam amatul waaye ba muy am jaam julli aji mu waru xale bi ma sóoragut julli aji mu waaye teewul na koy def nag ngir ngir tàmb ko balaa doon mag ni noonu ab jullit ku dul ab jullit dara waru ko ci diine ba ca topp mooy ki ki dëkk ci dëkk bi maanaam ki nekku fi musaafir nekku fi fi tukki si rek waaw dafay dëkk ñoo ñu la julli ajum war ñim aju ajum war nag julli eh, korite sunnal la ci ñoom julli julli gi it muy korite tabaski ka ka ajum warul nag dañ koo sopp ci moom loolu mën naa ràññale ka ajuma war julli it sunnal la ci moom ñi ajuma warut nag muy jigéen ak xaleek jaam ak eh, ki musaafir bi fi tukki si ñooñu julli ji eh, it luñ sopp la ci ñoom kon def ga moo gën bàyyi ga Eh, julli googu na ñaari rakka lay loon rakka rakka bu njëkk bi imaam dana kàbbar juróom ñaari kàbbar door jàng faate ku saar saar yi ñu gën a tàmm mooy sabbi isma laa a'la gannaaw fatiha ci rakka bu njëkk bi rakka ñaari bi fatiha ak ak wasamsi eh, wa duhaaha ñaari rakka bi nag juróomi kàbbar lay lay kàbbar xam du ci du ci limaale kàbbar bi mu jugee maanaam bi mu sujjotee ba jug kàbbar boobu du ko limaale kàbbar it bu njëkk ba képp lu ñu yëkkatee loxo yi des yëpp dangay wax allahu akbar ci salaam yi waaye seen loxo da nga ko bàyyi mu yore da nit ñi kàbbar yëpp lu ñu yëkk seen loxo bu njëkk bi képp ci lu ñu loxo da des yëpp nag da nga naan allahu ci sa làmmiñ waaye loxo yi moom ko yëg da ngay bàyyi mu yore bokk ci yi nga xam ne eh, yu am solo la sopp nañ ci itam ci bis ba sangu ca càngaayul mel ni càngaayul ajjuma eh, eh, jana ba lay doon loolu ñu sopp la laal ca parfum sopp nañ ko sol ca lu bees sopp nañ ko euh, bu dee ajjuma lu weex lañ ce sopp gën a sopp donte lu màggat la su dee it nag lu bees donte lu ñuul la euh, kon dal yooyu mooy yi nga xam ne yi munta ñàkk la ci ab julit mu xam ko xam daa sunna la su am solo soo xam dañu ko rafaatale saboon ci Ibrahima alayhi salaam loolu day xissa bu gudd gudd boo xam ne bu ñu ko beroon rek moom mën na waxtaanu boppam wax ne bu gudd lay doon euh, def naa waxtaan nañ ko tey ci rajo bi waxtaan wu yaatu lu mat une heure de temps yoo xam ne ci loolu lañ doon euh, euh, yi ñu war a mën a jàng ci tabaski loolu loolu du fi xaj waaye daal doy na ab junj rek ci ne mën a daal mi ngi ci topp ndigalal yàlla bàyyi bu boo xam ne dem na ba am lu jege téeméeri at. sun boom door koo may doom mu dem ba tàmbalee mata am mën am njariñ maanaam tàmbalee mën a dox yeneen ñu ne ko rendi ko loolu ko ne xam ne lu tiis la waaye la muy tiis tiis baay ba topp ndigalal yàlla ci jëfi ndigal li boo mu ko waxee doom ji ne ko sa ne ko sama borom ko def ma digal nangal dana ko defal li la yàlla digal kon muy bàyyi bu nangu ndigal yàlla ak doom ji nangoo topp ngir dimbali baayam ci ci topp ndigal yàlla loolu nag Euh, Ibrahima gis ne ba muy la muy yërëm yërëm doom ji ak la mu koy bëgg bëgg yërëmu ko ca ren di ga ngir li muy ndigalal yàlla ñun nag dañuy da ngay gis ne ñun dañuy yërëm suñu doom ba yeeku mu julli fajar képp duñ ko def te defe naa yee mu julli fajar moo gën a way fi ren xew ren lañ ko digaloon kon nag yëpp ay ay bind lañu ñu war a jànge ci ci ci tabaski ak itam jànge ci it ne doom daaw di di bàyyi daaw di diisoo ak doomam Ibrahima bi ko sunu bam di ko ren di mën na bàyyi ba muy nelaw mu bettu ko rendi ko mën na ko yow bam ne ngoon mu ko maay sa baay te yàlla ma jox ndigal dama lay rendi ci force te waa kenn du ko ci kenn du ci yedd na ndigal yàlla jëfe waaye da ko man ka sama sama doom dama génn nangam lu ci sa xalaat fanzur maa lu ci sa xalaat mu ne ko yaa abati fal ma yaa yaa abati fal ma tuumar sa tajidun incha allah doom kat dama gént mel ni ku lay rendi xam na ni Ibrahima yónante la te yónante géntam dëgg la mu ne ko bàyyi defal li yàlla digal nga xam ne kon nga gis ne kon ba ko yàlla jox ndigal teew dafa diisoo ak doomam eh, ñun nag dañu gis ne loolu bokk na li ñu gën a ñàkk ñun ci suñu société mooy bàyyi li ci ëpp dictateur li doon ci ay doom ak i soxnaam eh, ni noonu eh, maître bi dafay nekk dictateur ci biir classe bi ci élèves yi directeur di sociétés bi dafa nekk dictateur ci ay emploi am ba ci ministère bi wala keneen comme naan da ngay da ngay nekk dictateur ci ca ca ca ca ña nga ña nga jiite. dafa mel daal dictateur yi googu day mel lu ñu jëmbat ci sunu su sunu xeet ñu di ko judduwaale di ko di ko dund dund dund ba faatuwaale ko loolu na xañ nañu lu bare bare bare bare kon soo mënut a ñàkk donte ndigal yàlla la. su fekkee dana doy euh, kon ñu ngi ñaan rek sunu. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. mm-hmm. waaw. dëgg la euh, ni nga ko waxee mooy xar mu am ñeenti béjjën man barki dem laa ko gis ci Facebook bi xaw ma ne am na waaye teewul nag mat na tabaski su fekkee mucc na ci yi ma waxoon rek maanaam béjjën yi ci yokk maanaam du ca sikk. du ca sikk fekk mucc na ci sikk yi ma waxoon ne bu ci amee mu tabaski rek fekk mucc na ci yara mën na tabaski kon dollik béjjéen yi du na nekkul sikk ci xar mi kon du tee dana wér ko ko tabaski da nga tabaski allah. yooyu bidaa la man a génne ay ay ay ay tànku njëkkeeg fàllaree bàjjan ak wala nangami maam yooyu yëfi aada la te tabaski moom du aada jaamu yàlla la Eh, la ci lislaam santaani mooy yoon saas dafa da nga ko na ko xaaj ñetti xaaj bii nga sarxe ko ngir yàlla ca ñi ko amul bii man nga ko jokke jokke ak bokk maanaa maanaa say bokk say wëlure nga jox leen ci hadiya maanaam moom hadiya la ko tuddee kon suñ ko tuddee hadiya wala kado baax na waaye bu mu doon nag loo xam ne dañ ko delloo ci aada comme nañ ko def ci ngénte yi ak céet ya ba ca nga lekk ca jari jari jariñoo ko loolu lañ ci digle waaye am ay tànk nag maam ak fàllare bàjj nag yooyu nañu xam ne warisu génn ci tabaski tabaski sëñu su ca jaay dara mën naa xam ba ca der ba sa sëñu ko jaay ki la ko feesal sa sëñu ko fay ci yàpp wi da koy fay xaalis kon sëñu caa jaay dara lum néew ne day dafa xaram ki nga sarax nag mën na caa sëñ na ko jaay moom